nuyu leen bu baax téléspectateur u Sen 24 TV euh, di kontaan di ànd ak yéen euh, sa sune ne ci émission bu mag bi Sen Café Matinal euh, Sen Café Matinal nag di door tey mercredi yemoo ko 30 octobre di leen jaajëfal bu baax a baax nuyu kilifa diine kilifa aada fu waay mënti nekk di ñu seetaan di ñu bàyyi xel mu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal di nuyu ci suñuy ay maire di nuyu ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci yoonu campagne bi di campagne euh, campagne élection législative ah mi ñu dëgmal le 17 novembre incha allah di ñaan yàlla rek yàlla defal lu gënal askanu Sénégal ah loo xam ne rek euh, loo xam ne ñun ñëpp dinañ ci gis suñu bopp. chaque jour café matinal nee naa leen damay àndal le golden boys ah mooy euh, ki nga xam ne tey jii moom mooy Pathé mm-hmm. ah le chroniqueur ah maa ngi koy jaajëfal bu baax baax saa su ne dama ci àndamoon dama koy bëggee nag durant mois octobre yëpp di bëggee octobre rose te looloo tax ma bëgg ko. waaye nag tey dama ànd rek euh, ci émission bi sama mentor mon frère mon ami koo xam ne yàgg nañu macha allah muy koya Koyate moom mi nga xam ne tey jii nii euh, donc ci wàllum éducation ah évolue na ci bu baax a baax a baax touche am ci biir Sénégal Thiès kenn dootu ko natable tey moom laa àndal ci émission bi waaye duma def lu dul daal di nuyu Pathé ñu daal di ñëw ci li gën a fës ci boppu Thiès ak li ko wër. salaamaaleykum mbokki Thiès salaamaaleykum mbokki Sénégal. di am contentement encore une fois di ñëw fi nga xam ne moom mooy ci plateau café matinal mhm. di ko bokk ak suñu aaw bi nga xam ne duñ ko wutal ñaareel ba àdduna di tukki incha allah mhm. donc euh, di am contentement di nuyu bépp sénégale boo xam ne yaa ngi ci biir réew mi ak ci biti réew di suivre li nga xam ne moom mooy Sen 24. Mhm. donc euh, li ñuy def rek mooy bàyyi ak Cécile mu jox euh, ki nga xam ne mooy suñu invité tey mu présenté wu après ñu dugg ci li nga xam ne moom moo gën a ci Euh, tout yëglekaay. kay machallah jaajëfal la bu baakha baax monsieur Koyate euh, ziar naa la bu baax baax am mbégte ak contentement dalal la tay ci sama plateau. machallah euh, merci beaucoup. Mhm. euh, ma sœur mon amie Cécile. Mhm. di am mbégte bokk yow encore plateau. euh waye fi ci Sen 24 TV qui plateau Sen Café Matinal. Mhm. Eh, di nuyu mon frère Pathé mi nga mu ci plateau bi mhm. waaye di nuyu bépp téléspectateur bu Sen 24 mhm. den wax ni matinal baa ngoog eh, ñu topp ko topp sisil incha allah li ngeen bëgg din ko am macha allah loolu am na solo euh, Pathé ni ki tey euh, ci incha allah rabbi léegi nii sax euh, ki nga xam ne mooy Bougane Gueye mm. war naa taxaw fa fee ca tribunalu bu Tambacounda Euh, ci ay information sax gis nañu lépp bépp yoon bu nga xam ne jëm na ca tirbinal bi barricadé nañ ko ngir rek jël sécurité bi gën a wóor lan nga gisee taxawaay bu ni mel jàppoo ni lii moom euh, lu ñu war a mën a juger la une bonne fois pour tout ñu arrêté ko. maanaam euh, ni ma ko gisee Bougane Gueye du n'importe qui ci mhm. biir réew mi mhm. te aussi tamit dafa am mbooloo bu topp ci ginnaawam. Mhm. bi ñu koy jàpp dafa li nga xam ne moom lañ koy tuumaal mooy dañ ko wax bul jall président dafa nekk ci bërëb bi mhm. mu forcé mhm. donc kooku dafa doon nit koo xam ne tamit euh, dafa dafa jaay autorité publique bi mhm. maanaam sañ-sañ mënu koo jaay doole parce que autorité publique bi moom moo ko ëpp doole loolu nag soo ko defee tey ji aussi nga bokk ci benn liste boo xam ne liste bu am doole la nekk ci cinquième wala sixième position donc yow nekkoo un sénégalais lambda dañuy ñuy jugé mais c'est un opposant politique boo xam ne mu ngi def ay échelonnement jël jëm ci niveau supérieur yi nga xam ne. Mhm. moom mooy ci wàllu politique ci suñu réew. Mhm. ñu gis ne nag euh, lu mënoon ñàkk la mais man aussi ni ma ko gisee dama jàpp que ni moom dafa dafa dafa def maanaam benn suicide politique. Mhm. dem maanaam pour xaru pour ñu tëj la parce que Bougane boobu ba léegi gis nañ que ni dafay imposer mais dafay forcer pour ñu tëj ko. mais nag booy forcer booy imposer wu da ngaa war a ba xam yow aussi nekkoo di juum. parce que juum mën na laa mën na ci benn mbir bo xamni da nga bëggoon juste ñu tejj la pour nga am sympathie des sénégalais mais aussi bokoy def dang nga koy def ak xel. Mhm. mais do ñew rek nga ne man damay soobu ci biir mbir dañ may tejj par A ou par B ben instant aussi tamit dañuy xamni Sénégal la yor te dañoo am ay règles. Mhm. li nga xamni mom moy régir ñun suñu méthode de vie. Mhm. dañuy wax que ni le le droit est l'ensemble des règles de conduite sociale émanant de l'autorité publique. dont le non-respect ou la violation émane à des sanctions. donc yow boudé da nga def lo xamni non-respect la c'est normal que ñu sanctionné la parce que aussi yow tamit moomoo réew mi mais doomu rewmi nga da nga d'accord ni man sénégalais là d'accord ni yow ci biir territoire bi nga pare pour deuk d'accord que ni dama paré pour vivre en société donc damay respecter li nga xam mom moy les règles sociétales. Mhm. su di respecter woko tamit nguur day euh, du dal ci sa kaw sax dama duma ni nguur mais justice. Mhm. day dal ci sa kaw té aussi bu dalé sa kaw tamit. nit ñi mën nañoo taxaw benn côté ni mhm. c'est politique mais mën nañoo taxaw beneen côté ni aussi tamit li nga def waroo koo def waroo koo def gis-gis boobu laa ci laa ci am macha allah loolu am na solo euh, monsieur euh, Kouyaté gis nga ni jamono ji nii euh, réew mi yëngu na lool. Mhm. li nga ko gën a yëngal mooy ci politique législative yi ñu dëgmal. Mhm. waaye nag benn opposant caabi da koo féete ginnaaw jamono ji est-ce que gisoo ni histoire qui se répète encore une fois. waaw c'est la même histoire qui se répète mais aussi amener des défenseurs différence bu qui ci mhm. comme ni ko évoluer mhm. donc c'est important nit ki politique mais politique politicienne Et te dañoo le Sénégal faut ramener euh, la population c'est une population tellement mûre ba lu waay junj xam avant nga koy donc euh, ni ñu ko waxee rek Bougane dafa nekkoon koo xam Nous euh, song na politique bi ak doole te da yàkkamti mooy yàkkamti naa egg fi mu jëm. Mm. wala yàqamti na am confiance su Sénégalais yi. mais Sénégal boo ko jàngee li jaar war naa am njàngat goo xam ni lii boo ko defee baax na ci yow lii boo ko deful baax na ci yow. Mm. ah ñu xam ne aussi euh, le président de la république euh, Bassirou Diomaye fay mooy suñu kilifa mooy njiitu réew mi. Mm. am na béréb boo xam dafa nekk. man li ma ciy jàngat dëkk bi ñu doon dem ñoom ñaar ñëpp benn yoon la am. si bu fekkoon am na beneen yoon de contournement. Mm-hmm. Bougane mënoon na faa jaar ñu bañ a daje. mais dëkk boo xam ne benn bunt la am. Mm-hmm. sooy dugg benn bunt boobu ngay jaar sooy génn benn boobu ngay jaay. Mm-hmm. télescopage day am. mënul bañ a nekk. donc boo xoolee configuration géographique fi ñu doon jëm benn yoon dong moo fa am te kilifa réew mi jiitu na la fa. même boo fa nekkoon ñu ne kilifa réew mi maa ngi dikk da ngay toog ba mu jàll nga kóonde li nga doon def. rawat na moom mu jiitu fa. ñun kilifa gaa nga fa. vraiment Bougan waroon am nu mu doon négocier et tubaab day wax ce que l'on dit importe quoi la façon de le dire. mom mhm. ni mu waxee baxul mhm. su fekkoon dafa négocier ñep ñëpp xam nañu Diomaye et c'est quelqu'un bo xamni il est pacifique. Mhm. donc boko wé ci négociation dina la déglu boko wé ci euh waxtan dina la déglu mais bo forcé barrage aussi euh, barrage bo forcé dam ko xamul ni ci ginnaaw barrage ba. te pax boo ci dee dugg. xamul ne ci biir pax ba da nga war a def ndànk mhm. donc moom nag deful woon ndànk dafa ñëw song pax bi dugg moo tax li fekk ko ci donc comme le président a dit rek jàmm moo gën lu ne eh, xëy na ñu ngi ñaan yàlla bu ñu àttee tey peut-être justice mën koo bàyyi mu nekkaat waaye bu ñu ko bàyyi itam na ànd ak sagom def campagne ba Sénégal yëpp mën cee jëriñu. Mm, sénégalais yëpp mën cee jëriñ ci waxe président sax bi ni ki barki démb. Mhm. Euh, ci àjjuma ji euh, taxaw na def li nga xam ne tey ji waxtaan ak euh, sénégalais Euh, ci li nga xam ne tey ci moom mënoon mën nañ ni sax li gënoon sox mooy kaaw euh, Samba Ndiaye. Mhm. nan nga gisee taxawaay président. Euh, président gis naa que ni am na point yu baree baree baree bare mu ngi koy cité. Mhm. mais seetlu naa aussi que ni campagne bi fekk ko fi lu ci bëri. Mhm. ndax keroog bi premier ministre di ñëw cees mu ko fekk Arabie Saoudite. donc dafa am benn mbir bu ma seetlu ci digganteem ak Ousmane Sonko. kii dafa nekk di. gérer wàllu opérationnel bi. qui mhm. manam côté stratégique. Mhm. président chaque jour mu ngi ay ay ay voyageam dem lijeenti ji li nga xam mom moy doxal mhm. Ousmane Sonko mu bàyyi ko ak opposant politique. donc gis naa que ni c'est un bon duo parce que da fay ñew ñu concentré wu ci mom ñu may président mu soufflé. donc mom bir la yo xam war na ci mën profiter pour manam mettre à bon port li nga xam moy gal ko denk Euh, ci wàllu waxu Samba Ndiaye boobu nag man je suis un peu perplexe parce que gis nañ que ni réew mi temps yi maanaam coow bi man je comprends plus léegi sénégalais yi maanaam dañ koy dañuy jël benn coow boo xam ne je pense que ni man jarul sax maanaam mu fay nekk mais ñoom dañ ci dañ ci dañ ci attardé wu très bien mhm. te maanaam dafa dem ba léegi plateau télé yi rajo yi maanaam waxatuñu njariñ nan lañuy def pour créer manam de la richesse hmm. dem ci développement hmm. nan lañuy def ba dépense publique bi nga xam mom moy mooy jariñ réew mi ñu yok nan lañuy def ba nga xam pétrole bi suñ ko jëlé dugal ko ci li nga xam moy biir dépense publique bi nan lañuy ñuy répartition bi hmm. xaalisu pétrole bi lan lañ ci investir nangam ak nangam des choses très important, yo xam war nañ ci mëna xalat mais faral lañ ko ñuk bàyyi feulé top kay mo tax boo seetloo déggoo nit ñëpp neen le dëkk bi dafa dëgg parce que aussi tamit ñun ñoo concentré wu ci li développé de mais dañoo concentré wu sur sur des choses yo xamni c'est facultatif amul réew mi ben njariñ donc man fofu lay géey euh, fofu lay laay joxe sama intervention te gis naa que ni am na ci yu bari yu yoo xam ne ñu ngi am si réew mi man je vois pas que ni waroon na mën a def yenn yenn buñ

Euh, jigéen mën naa ëmb wasin juróom benn weer waaye xale ba est-ce que dina mag waaw te boo wasinee maximum lu ñuy jàmm mooy juróom-ñeenti weer mhm. te boo amee doom war ngaa nàmpal deux mhm. ni ko ni ni ñu ko santaanee pour doom ba màgg am kàttan am santé mhm. waa réew la ñun nangu ñu réew ñun ñëpp ko bokk ñun ñu àndandoo voté ni dañoo bëgg changement amul kenn ko bëggul changement bu dee am Cécile bu ñu la jaayee terrain boo xam ne miinoo ko yaa ngi laaj léegi il faut nga def ay modification waaw modification Sénégal du leen ne départ bi mooy ñàkk ko. Mhm. parce que gouvernement bi fi nekk dafa bëgg a suñu réew ndax suñu ñëw réew kenn ñàkku ko woon. Mhm. ku mu neex dugg loola weex loola neex waa jël euh, négociation yi kenn xamu ko mais c'est normal. Mhm. c'est normal di euh, d'ici six mois mënuñu ci am lu leer mais changement am na. changement bi nag nit ñi mënu ñu gis parce que changement c'est pas au niveau euh, de développement financier mm-hmm. ou bien ci lekk beeg ñaan bi mais bu fekkee jikko yu commencé na changer. Mm-hmm. kenn sañatul jël alors réew mi sàcc yobbu mm-hmm. changement commencé na am. bu fekkee changement euh kenn heure bu la nexé nga jël vol dem fa la neex tibb xaalis détournement loolu kenn xalaatu c'est un changement ndax comportement yi commencé ñoo changer. c'est le comportement. valeur yi commencé ñoo changer donc le changement bu am la. donc comme changement bi étape par étape la moi, je crois que Sénégal ñoo ko moom. Mhm. niñ leen accompagner. nit nag mënul mat. su gouvernement la mhm. ñi nekk ci ginnaaw te am expérience. wala ñi nga xam ne am nañu xalaat yu baax nañ leen accompagner. te bañ leen a bëmax ci paax. Mhm. bu ko defee bu leen accompagner ba ñu ba nga xam ne diir bu changement amul dañu xam ils sont incompétents. mais à 6 mois 7 mois mënoo ci xam compétence un gouvernement ak incompétence un autre gouvernement comme ni mhm. il faut savoir que le Bassirou c'est le président des Sénégalais mhm. actuellement bu ñu demee ci campagne bi mhm. Bassirou amu ci wàll alors que Ousmane Sonko dafa nekk chef de parti Bassirou dafa yilif opposition bi est Ousmane Sonko nañ ci bàyyi xel loolu Ousmane Sonko parti Pastef lay doxee fi mu nekk nii Bassirou a du ci impliqué mais lu jëm ci Sénégal nag ak doxalu réew mi Bassirou le président il ngi koy ñu ngi gis négociation yi. Mhm. ñuy gis communication yi à l'extérieur ñëpp di ci kontaan vraiment Sénégal nañu bàyyi opposé pour opposer nañu bàyyi opposé pour opposé. Mhm. régime bi fi nekkee wala liggéey. Mhm. nañ ko accompagner waaye lépp loo xam ne neexul nañ ko wax mais avec un nerf boo xam ne ak comportement yoo xam ne vraiment du blessé kenn. du blessé kenn voilà c'est ça. macha allah loolu am na solo euh, li nga xam ne tey jii moom mooy. Euh, conseil économique et social euh, conseil économique social et environnemental. Mhm. ak euh, li nga xam ne au conseil des collectivités territoriales. Mhm. boobee léegi ñu dissoudre ko euh, gisaguñu kuñ fa teg est-ce que président nekkul di salfaañe suñu ay institutions. salfaañe institution boo ko waxee maanaam mën nañu japp que ni. Mhm. institution yi ñu tek ci biir réew manam kenn ku ci nekk daf ko war respecter respecté mais dañoo nekk ci ben réew bo xamné dañu seetlu kan dañu nekk ci ben réorganisation réorganisation bi maanaam mooy ñu jéem a xool compte yi nga xam ni moo nekkoon mhm. compte yi ne ci biir réew mi mhm. nan ak naka la lañ ko utiliser li nga xam ni moo doonoon le ressources yi nga xam ne réew mee ko moom kan ak kan ñoo ko jël ak fan lañ ko yóbbu mhm. donc dañoo nekk di def réorganisation mais lu ëpp ci côté comportemental parce que bërki démb bi Ousmane Sonko ñëwee Thiès moom moo ko wax ay ministre am ni képp koo xam ne gis naa que ne yow dangaa jël dinaa la yóbbu ci justice. Mhm. kooku ki kay wax xaritam xaw ma ba xam dina ko def na parce que wax ak def ñaari mbir la Macky Sall gis nañ bi mu dikkee dafa wax après gis nañ nu mu demee. Mhm. mais tey jii loolu nga xam ni moom mooy euh, wàll yi nga xam ni réew mi daf ko soxla muy euh, CS boobu ak yeneen institution ak yeneen institution ñoom ñoo yor seen cëggal guy comme ni ko olof di waxee. Mhm. ñooy xool ban instant lañ pare pour utiliser ko. xool ban instant lañ pare pour bañ ko utiliser. parce que buñ ko conseil la ñu wax. Mm-hmm. conseil économique et social. Mm-hmm. ñoom dañuy indi sen participation. Mm-hmm. ci wàllu économie ak ci gestion bi nga xamné mom moy social nan la dalalé réew mi. mais tey jii ñu nekk fi ak ñu bañ fi nekk. les prérogatives yi nga xamné président am ko. muy les décrets ñu ngi fi. assemblée nationale ñu ngi nekk ci réorganisation bi. donc dama gis que ni dañu nekk ci instance bo xamné dañu nekk di taxawalat réew mi. léegi li ñuy def moy ñu may leen ben quelque temps parce mm-hmm. que le développement est un processus de long terme mm-hmm. nit du côté court terme ou le très court terme manam c'est c'est conjoncturel Faut nous fa réaliser dara Ben budget ñaari budget mm-hmm. mënul mënul def loo xam ni nit mën na ko le ci développement manam li nga xam ni moom euh, pouvoir d'achat sénégalais yi li ci a changer bariwul donc dañuy bàyyi quelque temps nous organiser wu des points bu boobaa nag su dee ñoom defuñu lu leer nit ñi wax leen que ni yéen a ñu waxoon nangam ak nangam ak nangam mais gis naa que ni vaar yi moom day ñëw gis bu nekk. waaw yaa waxoon nangam. Mhm. pare nga gis ñu def le contraire. Mhm. yaa waxoon nangam pare ñu gis le contraire. Mhm. dafay am. parce que bi nga xam ne Sonko dafa bëgg pouvoir bi daf doon wax rek loolu dañ koy accepter. daf doon wax parce que wax pour am ak wax instant bi nga amee moom parfois du bokk. li ma doon euh, xaar ci moom keroog tamit dégg naa ko mu ne dina laalaat wàllu monnaie bi parce que man dama defee woon li nga xam ne moo gën a critique ci Sénégal mooy wàllu mone tey jii celui qui t'a monnaie maanaam moo yor yow sa sa développement mais moom nee na pare na pour xalaat ci man point boobu laay xaar Ousmane Sonko hmm. point bi nga xam ne man moom ma ëppal njariñ hmm. man en tant que nit koo xam ne jàng naa lu bon bon économie hmm. cinq ans à l'université li gëna instable fi ni ne monnaie. nit Brexit. loolu état ragal. tay gis que ni aduna bi ñëpp ñu ngi daw di dem ci man xaar créer wala mu dem ci mais union monétaire yi ñu nekk. moi, ak ay yaaw du union dina mëna développer ko 60 ans doxul. def nañ ko 60 ans essayer essayer wat restructuration tas créé manam demul du fi ma koy xaar man foofu la ak d'ici un an ban pouvoir d'achat la li nga xam ne mooy li mu teg la am ci sénégalais yi. bu boobaa nag moom ñu ne ko ah kaay ñu jàmmaarloog yow yaa ko waxoon. Mm-hmm. jox nañ la euh, benn 6000 milliards ren jox la beneen 6000 milliards ban impact la am économique social environnemental. Mm-hmm. après nag ñu mën a xool ak moom mais dans le très court terme.

mais dafa am ben langage bu ñu waxoon boo c'est important mhm. les hommes qu'il faut à la place qu'il faut mhm. et bu fekkee siège bobu lañu nek, je suis entièrement d'accord mais na gaaw mhm. parce que au Sénégal y a les hommes qu'il faut mais do jël place bo xam ni ña fa nekkoon da nga leen a teggi di xaar pour ko fa Sénégal potentialité bo soxla amna fi mais aussi ñu bañ koy def yëfi parti ñu dem bañ koo def yëfi parti maanaam les hommes qu'il faut bu ñu nekkul suñu parti dañ koy yéex duñ ko jël donc c'est normal Nous, ñu parce que Sénégal est bokk et je m'en dis nous avons un objectif commun. Mhm. le développement du pays. Mhm. ba dans les démarches nous là ça c'est incohérent. Mhm. Vous vous que dama nekk opposition le Sénégal mu dox parti au pouvoir bëgg Sénégal mu alors que je suis l'homme qu'il faut à cette place C'est ce que leen l'homme qu'il faut et ça n'a rien à voir avec des appartenances politiques. c'est important pour le développement du pays euh, mon avis c'est bien vrai parce que les pays qui sont développés en Afrique je prends le cas de la Tunisie euh, le cas euh, du Maroc Nous c'est monnaie pour développement 100% parce que dépendre du ci kenn au contraire de dépendre de côté financier parce que nous imposons une loi tant que nous ñu ngi que on aura des problèmes mm-hmm. mais je crois que dafa am priorité où il faut que ñu régler problème yooyu ba pare balaa affaire monnaie parce que avec la monnaie aussi c'est bien mais Sénégal fi mu nekk nii ñu wax la ko ñu ñàkk la ko wax y a beaucoup euh, de points d'ombre li làqatu te lëndëm dafa bëri et je crois que peut-être ce gouvernement loolu lay jéem a leeral tuuti après euh, campagne bi ñu xam kan mooy am majorité je crois que loolu mooy seen wax après la campagne dinañu leeral nañ ñaan yàlla mu nekk leeral goo xam dina rafet te bu ba Sénégal Sénégal toujours avec Diawé euh, euh, donc euh, donc li nga xam élection législative la mhm. la coalition Takku peut elle peut faire obstacle aux ambitions de majorité de Pastef Diawé. Takku <laughs> voilà donc bu que bu fekkee Pastef deful faux pas. tout actuellement au Sénégal mu ci wàllu communication te boo gisee yenn erreur politique yi nit ñi ko def communication rek la doon ak manque de transparence wax naa ko de départ ni les Sénégal sont les Sénégalais sont mûrs maintenant xam nañ fu ñu jëm ba pare Sénégalais yëpp la ñuy déglu gis nga bu Pastef xewlee bul yaakaar ne waa Pastef doo fa ne ñëppay dem pour déglu communication bi ak li leen doy mhm. bu walloo keneen dajee di nga gis waa Pastef di le bon système de communication et les gens sont là pour comparer. Mhm. et je crois que système passé, pas bi li tax a mhm. Euh, dit. Mhm. un leader dégagé L'opposition opposition bi alors que les autres travaillent et c'est ça le problème. donc opposition dafa am organiser table au moins bu ko Sénégalais ni mais opposition fa séen ñëw diko taxaw mais fekk dañu dañoo ñëw nekk opposition bo xamné réponse question réponse ngay def avec Sonko ça pose problème mm-hmm. parce que Sonko mu actuellement il est en position bo xamné nekkatul en position de défense position de force force la nek fi mu nekk nii lu ko neex la wax soit ñu naan var baangi fi var baangi fi donc son but est de déstabiliser euh, l'opposition lo rek la soxla bu ko neexee wax chiffre yu ko neex bu ko neexee jiñ ku ko neex mais en âme et conscience si li Sonko di wax intéressé wu la viser li nga xam la population. Mhm. et c'est ça même si les gëmuñu la à pense 100 c'est sûr et certain que di nga un nombre constant au niveau des élections donc l'ol ce que gis ni actuellement ni ñom ñu koy def mais tout dépend de leur communication tout dépend de leurs organisations mën nga nak am doolé bu wéy ndax je me rappelle bi Abdoulaye Wade Romo romb Macky Sall ak ñetti dafa yaakaaroon ni mbooloo mooy doole. Mhm. ce n'est pas ça. Mhm. nit ñi dañuy toog di xool di déglu mais nit Macky Sall jëlee réew mi avec ses trois voitures Abdoulaye Wade nekk au pouvoir avec des milliards mais parce que population bi loolu safatu leen. Mhm. pour que safatu leen population bi leen saf mooy nga wax ñu dégg xool fi nga jëmale réew mi. et c'est le même cas même bu fekkee. Pastef you taxaw branler toute la population du Sénégal erreur de communication alors que l'opposition est de communication c'est sûr que certains que le jour peut avoir un changement mhm. mais ce changement dépendra de la communication et de ce que la population vous proposez à la population population d'accord euh, Pathé li nga xamni tay ji mom moom ci assemblée nationale ñun wa Sénégal est-ce que amagum nañu manam mentalité wala grandeur am cohabitation. cohabitation yaakaaruma ko. Mhm. te man lima, d'après man sama ay sondage lima ma lima li Sénégal majorité présidentielle la ñuy am. Mhm. parce que tamit lenn dafa paradoxe la. Mhm. nga fal nit légui toogagul légui nga jël mbir mi jox ko keneen. mënul nekk qu'on se dise la vraie vérité. te boo seetloo Ousmane sonk dafa am lu mu réussir. muy le fait que Barthélemy Diaz moo fi nekk Macky Sall keneen ak keneen. mais ñoom c'est rare nga dégg mu tudd seen tur. Mhm. xam nga lool lan lay def. Mhm. maanaam duggal sur internet nga bind Ousmane sonk a di nangam nangam. Mhm. algorithme bi sax da nga xàmmee. moom ces information dañuy dem ci saa si alors que bu dee information keneen ma nit ñi concentré wuñ ci loolu. léegi nag moom notoriété boobu mu am du la répondre di la defal traction. à chaque fois da ngay gis sax benn seen YouTube tagge la première réponse de Ousmane Sonko à Barthélémy Diaz mhm. nit ñëpp daw xoole ko Manam minimiser na leen ba pare mhm. te loolu dafa amaat beneen rapport bu muy def sa diggante ak moom mhm. mooy maanaam moom moo la sut moo la sut te du la Ousmane Sonko aussi nekk na nit koo xam ne maanaam daf ko may fale xam nga nit ku ci nekk da nga koy nangul dara Ousmane Sonko maanaam xam nga loolu ci ci day dépendre si biddiwu nit yi. Mm-hmm. Ousmane Sonko pour mu def la premier ministre du dara. Mm-hmm. pour mu def la président du dara. Mm-hmm. mais moom peut-être pour mu nekk ko mën na am jafe-jafe. donc dafa nekkaat ci li mu mën muy fale. te bu dikkaatee di ngeen gis que ni dina falewaat ba nit ñi jaaxle. parce que jeunesse bi aussi tamit dafa am lu amoon ci élection yi. dafa am jeunes yoo xam ne daawuñu leen jox seen carte. mu ubbiwaat mbir mi ne leen dem leen ngeen jël seen i carte dina leen ko joxaat. mosoo gis président boo xam ne da woote. jeunesse bi paasal seen bopp ba pare ñëw cotiser maanaam da ngay gis que ni bi biñ ci am. te aussi dafa am ay mag yoo xam ne fi mu ne nii Ousmane Sonko convaincre na leen. Mhm. te dafa am beneen benn mbir bu muy dawal. Mhm. chaque élection bu mu jëm day indi benn mbir boo xam ne ci lay focus. Mhm. ñëwoon na fi benn instant jàppale góor jigéen ñi. ñu jékki-jékki ñu dikkaat beneen élection mu indi beneen affaire tey nee na chiffres yi joxe woon baaxul. te kenn moo ko mën a weddi Macky Sall dafa doon joxe ay chiffres man nekk naa suñu classe à l'université en économie suñu professeur économie ni 7 pour cent yi nga xam ne moom la ñu wax Sénégal moom la am du dëgg te boobu ay 2000 lan la 21 ans te kooku maanaam c'est un économiste boo xam ne ñëpp ko nangul mu expliquer ñu ci biir amphithéâtre nangam ak nangam ak nangam soo ko amee ba 7 pour cent pouvoir d'achat wu sénégalais fii la war a toll te loolu dëgg la mm-hmm. El Hadj Mounirou Ndiaye wax na ci plusieurs fois. ni chiffres yi nga xam ne moom la Macky Sall di joxe chiffres yi baaxul. te ay professeurs ay universitaires lañu. universitaires yi maanaam ñoom duñ ci fenante ñoom li nga xam ne moom moo am moom lan lay wax bor bi dañ doon leb à gogo investissement bi ni ñu ko doon defee baaxul dañ doon jël maanaam kenn koo xam ne nekk nga ci biti rek mën nga defar tali ñu jox la. képp kenn ku ne ci biti man nga nangam ñu jox la. léegi nag dañu ne développement mën na nekk mais est-ce que retour boobu noonu. day doon développement boo xam ne c'est à partir du pays wala développement boo xam ne bu paree ay fuite de capitaux lay doon. Mhm. maanaam kii day ñëw teg Auchan jaay jaay jaay jaay pare jël ay xaalisam yóbbu xaalisam. Mhm. keneen day ñëw investir si ay tali pare pare yóbbu xaalisam donc mën nañu wax que ni ci wàllu développement création de richesse am na. Mhm. création de structure am na. Euh, maanaam déplacement am na mais c'est pas inclusive yeneen i doomi réew ñoo ñëw. def loolu li nga xam ne mooy wàllu développement boobu pare yóbbu ko seen biir réew donc te mbir boobu Ousmane Sonko mu ngi koy mu ngi commencé di convaincre lay Sénégalais mm-hmm. te ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi amuñu posture bu mën a weddi loolu weddi loolu bu dee wàllu Barthélemy Diaz ak ñeneen ñi moom dafa commencé écarter leen carrément mm-hmm. boo waxee mu ne du tudd seen tur mm-hmm. utal leen ay tur yu reetaanlu te sénégalais yi dañu bëgg communiquer dañuy dagg loolu santi ko sur internet mu def des tole tole moom maanaam maanaam information su demee. Mhm. moom muy indi li nga xam ne mooy vote yi. leen la rek présence ak 1 plus 1 tey jii gis nañu que ni même à Thiès sëy na bu njëgeen nee nañ dem na APR. Mhm. Massamba Diop dem na a dem na kii ni ñoom ñëpp dem nañ Pastef mhm. ñoom même bu dee fukki nit dina jóge ci ñoom ñëw ci Pastef mais yaakaaruma Pastef jox leen poste d'accord donc ci ci foofu daal laa ci laa ci toll d'accord loolu am na solo euh, ba léegi rek euh, ci li nga xam ne dañuy daal di ñëw ci jàngat développement wu personnel ci li nga xam ne mooy politique bi nga xam ne tey jamono ji ci la ñu nekk jawee mhm. est-ce que du ay ndaxe mhm. parce que boo gisee ki nga xam ne mooy euh, ex président de la république du Sénégal mhm. monsieur Macky Sall teg na fii ki nga xam ni moom mooy Karim Wade plus de 4 ans ñu ñëw tey jii nii ci jàngat rek ci xel mu sell ñu ni ñom ñaar ñoo def euh, li nga xam moy coalition tak wàllu ñom ñoo soxla li nga xam tay ji jii euh, daanee li nga xam moy majorité Pastef nan nga gissé lolu yabel nga ko mëna tuddé ci biir sénégalais wala lan moy jàngat waaw euh njàngat gi Cécile mhm. euh, c'est pertinent que mooy li wax rek sénégalais yi kenn mëntu leen nax c'est comme yow ya def analyse bobu mhm. à plus forte mesure que ñi nga xam ne ñoo nekkoon sur le terrain mhm. euh les militants du PDS les militants de APR nekkuñ ci terrain bi te ni nga ko waxee Macky Sall tout récemment mosul xalaat sax Karim Wade teg tànkam Sénégal. su koo xalaat. donc jëloon ko def ko noonu defoon papam noonu. ba nga xam ni kenn mënuy imaginer lan moo tax PDS mënutu jugaat mais bu ñu dellusaatee nii dañoo bokk coalition. Mhm. Euh, damay naan dañoo rus. kese seen gàcce la. gàcce gi nag mooy mënuñoo fexe euh, ba Sénégal yi seen mentalité ñu changé ko ñu ko Paate waxee de dafa ngëm-ngëm dafa fort. dafa am koo xam ne su raamee ak yow dem ba di dox ak yow dem ba ànd ak yow di daw euh, pour nit ki ne dellusiwaatal kaay raamaat du ko defaat te euh, organisation bi nga xam ne mooy Pastef dañoo raam di raam di raam ba taxaw fi ñu war a taxaw yéen bi ñuy raam fekk na yéen a ngi dox te ba ngeen di dox jubóowu leen ko nekk sa yoonu bopp donc c'est c'est grave PDS du parti bu ndaw PDS du parti moom mais manque d'organisation weesul nga jël sa lépp teg ko ci loxo euh, Karim Wade yaakaar ko koo xam ne mënutul teg tànkam Sénégal mënutul ñëw Sénégal mënutul wax sax Sénégal yi dégg nga ne moom lay xaar donc je vois que ni dañoo def erreur politique foofu. Mhm. APR bi Macky Sall taxawee ne carrément nekkatuma defatuma troisième mandat ci la ñoom ñëpp tasaaroon kenn jéemu xalaat ne sax un leader moo toog pour jéem a relever les défis. Mhm. mais xalaatuñu ko mais dañoo tasaaroo pour dire a dem seen que mhm. euh, nous ku nekk jaar donc ça pose problème du ñooñu ñoo ñëw waa mhm. euh, man li ci jàngat question bi nga def au niveau de l'Assemblée, assemblée euh, les prochains députés yi ñu am. Mhm. mooy ngay laaj ndax cohabitation mën si dina mën nekk mais à condition que ñu nangu ni ñoo am les objectifs communs. comment ça ñu les députés yi ñu ngir way nañu def comme ñi doon def Macky ni man député Macky mhm. fi kenn mhm. même si la majorité. Mhm. bu fi kenn doxalé assemblée. députés député Ousmane Sonko la wala député député sénégalais nga. cause moy mooy suñu réew Vous ñu intéressé nga ciowli vous yépp bu sont ñu ngi ciow di té kenn ku ci Sénégal nañu. bi factures yi na courant cher na ndox mi cher na. Mhm. ceeb bi cher na xaalis doxatul ci dëkk bi. ñu ñëpp ñu am ne dañoo war a def changement suñu Sénégal ñu am ci objectif. Mhm. vraiment bu élection yi jeexee. Mhm. war nañoo mën a am un objectif commun mooy defar suñu réew. bañ a continuer nag wax dëgg yàlla di naan Pastef ak opposition. kooku moom dafa far a jeex. maintenant euh, ce qu'il le faut nag mooy ñi nga xam ne wax nga ko mooy coalition bi euh, mënul mënul daane dara mënul defar dara man je mise même ci parti nga xamni ñoy ñoo judd ndax ñooñu dund nañ ak ñom mais ces anciens là qui sont là comme ni ko Pathé waxee depuis 40 ans nga ne fii Sénégal amo ben objectif amo ben avancement bàyyi ba jeune yi taxaw tek sen tank nga bëgg né damay soppi def changement kooku da ngay nax sa bop mhm. et puis benen bi moy bu féké da nga juk fa nga nekkoon nekkoon parti au pouvoir def lu la neex ñëw né ma ngi dem songé pasteur pour and ak ñom légui mais les gens de pasteur sont conscients. Mhm.

amoon ay bëgg-bëgg ñu bun xatal leen xeex leen ba ñu jot ci nguur gi ñooñ dañu am beneen doxalin li fi nekk rek mooy jàppale leen ñaanal leen mais ñoom tam ñu xam ni seen objectif mooy defar Sénégal te war nañoo defar Sénégal ci ni mu gën a gaawee bañ a bàyyi xeex bi bàyyi xuloo bi li ci def nañu def ko ci suuf am na yoo xam ne nag un leader du ko def am na loo xam ne parti pouvoir du ko def maanaam li nga bëgg a def ni ko fàngaaral ci wàllu justice ko il faut éviter ça day taal mm-hmm. liggéey bi lépp loo xam dañ ko war def ci justice ñu def ko en sourdine population bañ koo wax xamati ndax am na loo xam ne bu ko population waxee day indi ay soulèvement day indi ay coow te daf ñuy bloqué nañu liggéey li nga xam ne ay règlement de compte la wala ay dossiers yu war a xool vraiment ñu ngi ñaan le président Bassirou Diomaye na ko def en sourdine ñun ñu liggéey suñu liggéey defal suñu réew problème yooyu di régler en bas ñun suñu réew di avancer en en haut loolu daal mooy objectif bi

Euh, Varié yeeg yooyu. Mhm. wàññeeku nañ biir Pastef. donc bo amé manam entre 55, cinq jëm soixante mhm. ci passé bu la bett. Manam mhm. ñu leen voter fi mu ne nii. boo ko leen bett par pourquoi man la 54% yi duñ dellu. nit dafa am leen lo xani manam sa côté chichique la nit tay do togg dara ba war ba mu war gaz bi jeex nga kepp añ ba. mënuma la voter 2017 voter la 2019 voter la nga yéeg au pouvoir. ma ne man dama lay bàyyi ndax waxu benn ni parce que nit su xasee ba song un projet fii ak yóbbuwu ko à bon port. Mhm. maanaam côté xelam sax mayu ko mu ne day bàyyi lii. réalité bi tamit dafa dafa exister. Mhm. parti bu ànd ak ay jeunes bokkul ak parti bu ay mag construire. Mhm. maanaam parti bi day dund lu yàgg te loolu maanaam àdduna moo ko wax. du maanaam pa affaire partisan la affaire man maanaam du ma wax ci loolu man je fais des analyses à travers li nga xam ni mooy fi àdduna toll. mais parti bo xam ñiko constituer ñepp lu ci ëpp amaguñu 25 ans wala 25 ans lañ toll donc ñom amnañ nañ benn benn 20 ans bo xam mhm. am man nañ ko nekk ci biir réew mi. seen point focal ñëw sen benen point ñëw sen benen point ñëw. Mhm. parce que Ablaye wad mi nga xam rek amon na presque 80 ans réussir na groupe am am fi 20 ans. donc ñi nga xam ay xalé lañ sen groupe lan la mëna def té ñi fi ñi fi nekkal aussi dafa am ay mbir yo xam dañ ci juum Barthélémy Diaz mënon na nekk ponkal mi nga xam mooy opposé Sonko mais dañ gis ci ay waxam wax waxaat. Mhm. Déthié Fall mi nga xam ne bu génnaatoon. mënoon na nekk beneen point Sonko jël xëcc ci wetam. Mhm. ànd ak jeunesse boo xam ni aussi tamit booyu jàng lañ. Mhm. da leen koy accepter. la ça parce que sénégalais ñooy def benn erreur. dañ ñaan la ku jàngul da ñàkk jom. nga dem jàng dikk wax mag ñi mag ñi gëmuñu. gone yi nag dem ci terrain bi ba woon leen que ne lii mooy dëgg. donc jëlee leen fi ça va être un très grand problème. c'est ça macha allah. très rapidement dañuy vais présenter la invité. Mhm. monsieur hein, directeur de l'agence Aptel. instituteur et formateur acteur de l'éducation. mom mhm. invité suñu invité ngi <laughs> ah yow euh, éducation day euh, day mhm. parce que ay lañ plusieurs années. dans les campus donc. tey waxtaan ak yow ci wàllu éducation dina doon mbir boo xam ne dinañ ci kontaan lool te dina jariñ Ceesuwaay lu baree bari macha allah incha allah donc ñu bàyyi la rek nga euh, présenter structure bi. Mhm. après ñu dugg ci question yeeg yooyu. voilà merci beaucoup euh, ma soeur Cécile encore. Mhm. Euh, ñu dégg suñu deuxième pacc bi rek. qui parle de l' li nga xam ni mooy fondement lépp loo gis. Mhm. ba ci ba ci politique bii ñu jugee. Euh, développé des jeunes éduqués instruits qui sont là am seen i lijaasa ça. Euh, mu mën à faire alors euh, je suis directeur de collectivité éducative instructeur formateur directeur de l'agence APTEL APTEL signifie agence pour la promotion du tourisme éducatif et des loisirs mhm. et protection de l'enfant. Les poulots, tout le temps, tout un enfant de moins de 18 ans euh, Aptel de koy jël en charge de protéger de quoi accompagner. Mhm. et Aptel est là aussi pour former des jeunes euh, les accompagner pour nous mener à am euh, buntu de ne mën c'est-à-dire les formations de moniteurs bo tu vas sortir avec un diplôme d'état Et mhm. reconnaître les mën ngaa jàngal mën ngaa yar mën ngaa orienter xale. Mhm. bu ko defee nga mën a caser donc, euh, Appel est là. Mm-hmm. Euh, aussi pour accompagner la population dans des formations, euh, des protections de l'enfant, de la santé, de l'éducation, de l'art domaine mm-hmm. donc moo tax ñu ñëw de di laal volet éducation mm-hmm. éducation et quand on parle de l'enfant nous avons ni volet international ci charte yi ñu ngi considérer enfant ki nga xam ne dafa am 0 à 18 ans donc foofu mën nañu ko dugal ci cadre enfant donc euh, boolewaale ci jeunes yi ñooñu nag la ñuy waxtaanal tey jii euh, ci wàllu éducation bi ñu jëm ndax Sénégal dafa toll foo xam ne euh, dañuy màgg baate wax na ko léegi des jeunes de 25 ans ñoo war a yor di réew mi le président sortant Macky Sall boo gisee mu daan wax le Sénégal émergent émergence Sénégal de pays ñoko pas yor. Hmm. donc je yi yor mais ki nga xamni mo wara a yor kër ki nga xamni mo wara a yor gox ki nga xamni mo wara yor réew amna préparation bo xamni suko amulé lamuy hmm. la yor du baax. deug la et c'est ça qu'on est là pour parler de l'enfance et nous rappelons toujours que pâté hmm. l'enfant a trois milieux. la maison fa la yar bi commencé. muy oui papa yi ak yaay yi. ñoo meññ xalé bi ñoo ñëk def ci mom yar bu xalé bi yaroo ba paré ñi ne dañ koy yobbu école wala deuxième milieu de l'enfant mais tay dinañ ci wax mais on va parler du troisième milieu de l'enfant le milieu le plus dangereux moy c'est la rue les moments libres de l'enfant Il faut que tay ñu l'éducation de l'enfant en ligne té bu ñu né la rue maintenant d'autres dox ci mbedd mais ce sont les réseaux sociaux moy mbedd bi gëna yaatu té actuellement xale fa dem pour yaru ji xale fa dem pour jang ji xale fa faire yaakaar fa comportement. Mhm. alors que éduquer c'est protéger ndax bu lékulé ci kër ga nanu protéger woko ci fébar ku donc éduquer ça veut dire protéger. protéger comment vous dé ci kër ga la papa ji da ko dundal war ko solo set ñu koy sang war def ci mom ay tout ça c'est la protection bu école ba la da koy jox du savoir xalé bu amul savoir est-ce que protéger nga ko ci ay naxé mbaay mm-hmm. on l'a pas protégé parce que amul xel bo xamni dina dina mën défendre ay ay idéem dina défendre ay position bi ci des nak moy mi gëna graw moy les réseaux sociaux euh, nous avons constaté au Sénégal selon les euh, les pourcentages actuellement 88,74 des jeunes utilisent internet. Wow. C'est bari trop 24 heures sur 24 heures y y a tranche d'âge ce sont les enfants de 14 à 25 ans ce sont les jeunes et les enfants. Nous utilisons 88 de la population du Sénégal Nous utilisons internet 24 heures sur 24 heures. Mm-hmm. Ah, il faut mettre un point d'interrogation. Mm-hmm. li ñuy utiliser est-ce que vous nañ ko aussi contenu lañ jox. ça moi, tax ñu ne est-ce que xam nañ ko. alors que euh, nous sommes d'accord dama ko faral jox ci sama texte ni le monde bouge le monde est en avant ce qui nous impose le système numérique partout tu iras nous avons le numérique pour la bonne marche des secteurs de la vie donc dañoo nekk ci àdduna boo xam ne xarala yi c'est ñàkk. déedéet. Cécile waxtaan nañu ni bu njëkk da nga daan ñëw toog. góor gi ne paate mu ne ko naam mu ne demal tëngéej nga ne sa ndiyaay sàngam damay maye sama doom paate war a dugg ci oto yi fanaan tëngéej xëy dellusiwaat mais léegi dañuy woo téléphone jox ma sa numéro ndiyaay nga woo ko ni ko damay maye sama doom avantage baa ngoo mhm. gaaw na trop actuellement nii suñu paree nii li ñuy waxtaan ñun ñett dong la ak suñu technicien mhm. mais bu ñu paree fii ngoon plus de 100 personnes monique nañu ko déglu ko. donc xarala yu la. Mhm. mais nous amé avantage noonu la bëree ay danger ay inconvénient c'est danger yoy nous ñun ñu maîtriser des techniciens en informatique. Mhm. mënuñu cee egg. Mhm. na xalé yi. et là on parle maintenant de ces outils. xalé yi dañu jël internet. Euh, c'est internet moy face bi nga xam ni yomb na xam. bo duggé sa portable bo tapé jot li ngay jot ci internet. mais internet. dafa am ñaari parti cleaning web ak dark web Sisi si li ngay gis cleaning web mooy mu lu leer li dark web mooy loo xam ne doo ko gis mu ci internet fa la nit ñi defee ay trafiquant d'armes fa la ñuy defee trafiquant drogue yi fa la ñuy jaayee xale yi. pardon j'ai pas compris. waaw mënu ko comprendre mu koy doog dégg. dafa am dark web. Lo xam ne mu ngi ci biir internet. ay application la ham xam ne kenn mënu ko xam. mënoo koo télécharger tamit. dafa dangereux boo ko duggee sax ñu tëj ñu jàpp boo ko télécharger mën ngaa dugg ci foo xam ne mënoo foo dugg parce que il faut nga maîtriser outil bi loolu nag ñi koy maîtriser mooy sos ñi nga xam ne c'est un réseau de trafiquants ñu tuddee ko dark web mu nekk ci internet bi un réseau de trafiquants boo xam ne ñi ko fa ne ay punkal lañu xale yi mun mënuñu koo xam xale yi dañuy server rek nekk ci whatsapp youtube instagram mhm. twitter snapchat mais dark web boobu mu ngi ci biir internet làqatu fël la trafiquants yi di joxante nga nekk ba États-Unis di dund ci xaalis bu weex taal ci trafic drogue parce que am nga site boo créé ci dark web bi livi livreur bi créé benn site ci bi ngeen di trafiqué armes yi fa lañ koy trafiqué. Mhm. et ils sont là di ko trafiqué yow ngay connecté wu ñu jaar ci suuf duñu la gis fi mu nekk nii boo jàkkaloo caméra bi muus jaar ci souftable table bi doo ko gis. déedéet. munu nekk.

mais ñi lay suivre te créé plateforme boobu yéen seen waxtaan intéressé wu ko xam leen intéressé l' argent dañu ne Cécile ak Ndaga comme ñu ngi waxtaan nañu fexe ba paate bokk ci waxtaan bi su paate duggee rek suñu xaalis yokk su jawee duggee suñu xaalis yokk actuellement foofu la ñu toll moo la joxe pourcentage Sénégal ne la 88 pour cent de la population utilise internet 24 heures sur 24 et à la tranche ans

ñi lay suivre ñoy la notification ne Pathé dama songi Cécile nañ ko désasté nañ ko génne ci xelam ndax Cécile da doon suivre ben émission wala Cécile da doon suivre ben programme bu am solo li intéressé wu ñu. nañu fexé ba Cécile déconcentré. deug la motax quand tu es dans le net. da ngay jékki-jékki notification dikk pour dévier ci nga doon ne. wala publicité genre yoy wala publicité publicité ça garaawul. Mm. mais dañ lay indil xarit indil la ben jeu pour nga top ci et c'est ça non la ñu dévier suñu xar maintenant dafa am ay OCEAC OCEAC bi dafa ay système yo xam dafa nek internet pour dévier nos enfants Ben bi moy addiction numérique addiction numérique bobu moy feebar bo xam ne day tax xale bi nek chronique ci internet bo demee NG mu internet mhm. bu ko nexé faté portable ci néegam dem marché dellusiwaat

et c'est une maladie bo xamni mhm. suñu baye jeunesse bi dugg ci dañuy graw mhm. amna benen bo boo nak mo nek Sénégal actuellement quand on parle de politique. moy mhm. les fake news. xale yaa ci internet bi mais xamuñu information bu baax ak information bu dafa am web web boo ko waxee moy les www point am lien yo xamni ni xamnañu baxna wala baxul da ngay jek jek ñu ne la Sadio Mané. Si vous avez lien, vous avez 25 000. Si vous avez un 000 francs avec 100 10 000 francs avec 100 gigas de, connexion. Les vous que vous avez un office, vous avez dara dara internet. Vous avez deux liens. Alors que le lien est un lien arnaqueur. Quand vous l'ouvrez, vous avez une possibilité de ce site, récupérer ces données, récupérer ces mots par toque de la harre soo dugalee xaalis ñu récupérer ko soo dugalee information boo xam da leen ngi intéresse ñu ko daal di jaar processus boo xam un parce que dañ lay imposer ni la partager c'est ça parce que intéressé autant de candidats ñoo am xaalis parti boo connexion hmm. ci étude parti mi notification ni la tel à de la ami. pour dévier la. nga ami nga dekk jek gis salut salut bi du mom de salut yow nga oui salut bébé comment tu vas <laughs> dévier nga et c'est ça. Mhm. c'est très bien réfléchi. Nous dévier mhm. alors que imagine xalé bi nga xamné dafa nek fofu te xamul li xew. Mhm. benen océan mu ci grooming grooming mo tëj deuk bi laal na sax ba laal mag ñi ñun lan mooy grooming moy dafa nek arnaqueur boo xam ne day naxante ak yow di naxante ak yow ba nga jox ko confiance ndekete mën na jël 2 ans di la top 2 ans di waxtaan ak yow 2 ans di gagner sa confiance mais lu ci muju pour dévier la pour détourner la bu fekkee xale nga wala mineur nga et c'est dangereux mm-hmm. et c'est très très très très dangereux mm-hmm. si l'enfant le fait mm-hmm. donc xale bi mu ngi ci position boo xam ne position bu doy waar la dangay gis un arnaqueur boo xam ne day mel ni Diawe daal di woo xale bi demande ko ami l'enfant accepte d'être son ami ci biir xaritoo boobu ci la koy joxe ay neexal waxtaan ak moom ban école nga nekk ban classe nga nekk ah c'est bon yaa ngi système bi leçon sangam di nga ko jàng xaaral ma envoyé la leçon bi xaaral may la sax nga jënd livre bi grooming mooy ki nga xam ni day dévier xalé bi ndank ndank au fur et à mesure. mel ni ko naxul da ko wa mel ni ko naxul. fexe bi ko man ni ko man envoyé ma sa photo mu envoyé ko photo mu ne ko dama am doom bu nduróog yow wala dama am raq bu nduróog yow xam maa la may lii jëndee ko kayé non c'est pas grave jot nga ko wax seen parents dañuy fexé ba dévier la ba mom ngay def homme de confiance am. Mhm. fekk mom stratégie la tek jaral na ko deux ans mu toppale di la jàppale. Mhm. mais à la fin c'était pour te dévier sexuellement.

état bi le portable la la première maison d'éducation c'est sa famille. Mhm. Moi je donne conseil aux parents xalé bu amul 18 ans waruñu ko jëndal portable tactique. ah man de sama doom amul kër 17 ans la am waaye xool day jël téléphone bi naan ni di ko wax ñoom seen seen seen TikTok wala seen réseau social yi waaw xam nga dañuy def protectionnisme waaw maanaam dañuy tëj mais xale bi nga xam ne moom la ñuy jox information mhm. information boo xam ne di mu soxla lañ koy defar maanaam ay ay ay peut benn structure bu ndaw bu mën a jariñ xale bi bu maggee dans le long terme moom day doon quelqu'un de day teel a defar boppam maanaam loxom loxom day commencer di di tàmm jouer c'est développement Mhm. portable tubaab da koo defar. Mhm. def ci ay logiciel def ci lu ne waaye du ko jàngal doomam. Mhm. li muy jàngal doom positif nous, les parents ñoo avons conscience ni li ci portable bi bëri na lu baax bon léegi nag nous ñooy ak suñu doom na dañuy fexe bu jox leen lu baax li application bu contrôle parental. soo duggee ci portable le parent peut ci contrôle parental fexe ba orienté doomam fi muy dugg ak fu mu dul dugg ba nga xam ni su jëlee portable doomam def ci contrôle parental boobu doomam bu waree dugg feneen da koy laaj mot de passe te mot de passe yi parent bi doon ko am c'est possible mm-hmm. mais c'est que parent bi ci boppam xale bi da ko gën a miin portable nu muy def. moom lay wax sama doom day jël téléphone bi nii di vocal. est et c'est ça le problème. di vocal su ñu demee ci parents yoo xam ne actuellement on a des enfants à 5G. Mm-hmm. xale yi dañoo judd tombé ak internet. Mm-hmm. donc ça pose problème.

au Sénégal liberté internet dafay am c'est partout dans le monde. Mhm. mais ñun tubaab bi dañuy nax il faut qu'on soit conscient. Paate pour qu'on soit conscient mooy lan. Mhm. nañuy waxtaan ak suñu doom et yaa collègues ko léegi doomu chinois bi bu duggee day gis ay calcul ci internet bi moom lay def. ak ay jeux. ay psycho ñun suñu doom day ñëw ci TikTok. Cécile maa ngi ñëw ci yow danger boo xam je veux que tous les parents xam danger bi à commencer par ma sœur Cécile portable yi ngeen c'est dangereux. parce que ce contenu lay seetaan. même c'est dans ce contenu. Mhm. tu as limité l'enfant. nee un un portable bu as connexion tu es contrôlé Les Cécile a le portable jox ko Qui qui contrôlé Cécile xam na portable mu ci notification Il ba a une ok le gars entre dans ton portable. Ok. li nga bañ c'est dangereux. effectivement dañuy jël suñu portable daal di ne xale bi na foo ma dem marché soo joxee xale bi portable bi yow yaay bi wala papa ji nga dem dañ koy envoyé notification derrière toi xale bi nag xamul lan la war a def valide ou non su validé rek kër bi dugg na récupérer mot de passe su parent bi di ko xaar ceci loo mës a waxtaane kër bi dina ko xam photo boo mës a dugal arnaqueur bi di ko xam bés bu la bëggee chantage da koy def

pour eggali jeu Ce validé na lo xamné na portable le gars est là il a tout est donné. ni sama doomu rak bi ngeen di waxal Mom mom day la eh, et c'est dangereux. <laughs> donc li ci gëna doy war moy xalé bi. Uh-huh. parent bi. Uh-huh. na appareil bo wala appareil de jeu pour xamné pour moi, ko ci jeu mais je yoo c'est déjà téléchargé. Mhm. bu mu am connexion internet. loolu c'est un conseil numéro un pour les parents su fekkee que bëgg seen doom ba bëgg seen doom tablette vous xam ne dañ téléchargé ay jeux mais bu mu am connexion internet. parce que dès que tu es connecté. Mhm. tu es suivi. Mhm. beneen bi ci des mooy am une plateforme qui est sur internet. c'est par rapport aux photos et aux vidéos. suñu doom yi jigéen yëpp dañoo bëgg Snapchat. waaw dañoo bëgg Snap di alors que l'arnaqueur naa est ki qui attend les photos day xaar xale bi solo dama koy wax di ko waxaat à chaque fois dama di toog sànq keroog sama biir buntu bureau benn femme sol loo xam ne nii la def yére bi hmm. mu dox dox dox dox yére bi yéeg mu taxaw wàccewaat ko. <laughs> seen mor mu doxaat doxaat yére bi yéeg. mu wàccewaat mu defaat ko ni wàccee pour mbaggay feeñ. mais imagine kooku bu ci photo bu ci photo.

raw nañu de. mais nañ ko mën a dee raw nañu. non xam nga lu tax ma ne raw nañu. dama xam ni euh, contrôle parental man dama koy gis TikTok. waaw parce que man moom lu may dugg dama maanaam dama ci dem ba sori. contrôle parental daa am na TikTok am na TikTok boo dugg boo demee ci paramètres am na contrôle parental parental mais yow le parent peut prendre la portable de l'enfant taloo ko daal di installer contrôle parental bi dafa mot de passe toog. Mhm. xale fu mu dugg day sonné ci sa portable. bu ko defee su baaxulee doo ko validé. Mhm. xale bi continué ay jeu loolu contrôle parental c'est possible euh, Pathé Cécile amna fo foo ci WhatsApp le temps ne nous permet pas mais parents amna fi WhatsApp fo ne paramètres yi pas de portable paramètre à défaut non le temps nous le permet parce que li demal ci après détail. <laughs> bagage rek mais xam contrôle parental boobu xaram xaram <laughs> ma dugg paramètre après ah, na la ko jox <laughs> légui bo jëlee portable actuellement ni paté surtout la majeure partie des Sénégalais dañuy utiliser WhatsApp mhm. té WhatsApp boo ko installé day nekk paramètre à défaut légui soko paramétrer paramétré wul paté na nga xamné ni loo ci WhatsApp lo waxtaan ci WhatsApp kenen jël nako manam comme dañuy dañuy dupliquer ces ces sa. sa interface ça. c'est ça non non non non paramètre yaa ko réglé wul parce que a des paramètres pour tout le monde waaw man paate lu ma def yéen ñëpp jël leen des fois ngay dugg ci benn site. loolu moom rek la naa ko di site di xool di xool di xool di xool. Mhm. di nga gis euh, benn nit sa xarit. mu leen ne ku jub la ñu gis ko ci site pornographique kanamam. Ah, day am de. wala gis benn xale bu jigéen bu dëkk sa koñ ñu gis ko ci site lesbienne du moom dafa xamul lu muy utiliser lii ndax dafa paramétré wul pour wane ni man ma foofu. su fekkee ne da ngaa ne le monde entier jël leen sama photo leen neex ngeen def ci ñoom ñooy jël sa photo yaa leen jox autorisation. léegi yow nooy mhm. dimbalee gars yi maanaam foofu ban côté la nekk. waa mu ngi am na am na. waaw mu ngi ci paramètres yi. Mhm. boo duggee ci paramètres yi ba wàcc suuf. Mhm. Euh, WhatsApp ba wàcc suuf ci paramètres yi da ngay dem confidentialité. ok xaaral ma demaale. soo demee confidentialité. man maa ngi xaaral xaaral maa ngi paramètre raw nga ma waaw ma dem confidentialité ñëw naa. ndax émission bi neex na. ñëw naa. paramètre de confidentialité. donc boo duggee ci paramètre. waaw yaa ngi ci whatsapp. waaw boo laalee trois points ci kaw. waaw nga dem paramètre. waaw da ngay dugg confidentialité. waaw soo duggee confidentialité. Mhm. da ngay gis présence en ligne. photo de profil.

voilà boo wàccee. ba tey man élément jawe laa bu yàgg. ñëwaatal ñëwaatal beneen affaire. <laughs> waaw. opération Fatou Seye. yow ba pare nga wàcc Cécile. waaw dem ci paramètre avancé. ma ma ñëw ba léegi paramètre WhatsApp la. waaw waaw maa ngi paramètre avancé. yéen bloquer les comptes inconnus. waaw protéger l' adresse IP. lors des appels. yëpp tëj leen yëpp tëj leen ni ci kaw. déet man nekkuma paramètre avancé su fekkee dafa ubbeeku woon rek dee ngeen. man damaa ubbi woon yëpp. yëpp nga ubbee woon. waaw ça veut dire que sa IP sa portable li ci nekkoon amoon nañ ko. man xaw naa dee. yow man xaw naa dee la alors paramètre avancé. waaw léegi ma tëj lan. yëpp ngeen taal la taalal lépp taalal yëpp. ma taal. taalal yëpp. benn benn bi man benn ngi woon taal. donc xale jigéen ñi le motif donc d'habitude est-ce que c'est ça c'est ça fa lañ ko jëlee. donc euh, sincère xaw ngeen maa rey quoi. <laughs> mais lii ñun xóor. xam nga a beaucoup de choses. yow mii pour vous montrer que les dangers pour vous montrer que les dangers yi nga xam ne suñu doom di at dajante ci internet bi. Mhm. donc chers parents li ñuy wax moy xalé bi nga xamné aussi dafa nek xalé bo xamné dafa wéet ak internet à chaque fois Cécile bo waccé sa kër. Mhm. Euh, bëgg na bëri na kilifa yo xamné ni ñu wo seen doom ba guddii mhm. ndax teud nañu. waaw et un père de famille bu waccé kërëm bu toogee 10 minutes war na wo ku né waaw et c'est une façon xalé bi génn internet bi kër bi daal di perte liste bi quand tu appelles ton enfant mu nekkoon ci néegam connecté wu nga ne ko Awa Ndiaye mu ne ma nam yaay ngeen ko kaamu yónni la day fay connexion bu fay connexion rek arnaqueur bi perte na risque mhm. ok léegi moo tax on interdit les enfants d' être accro au téléphone. Mhm. parce que ñu ngi joxe le maximum d' information. Mhm. donc le parent à chaque fois dafa war a doo woo ay doomam di leen sant beneen liggéey. mooy suivi mooy suivi IP bi. c' bien bu ko defee xale yu mën a fay portable am arnaqueur bi perte risque bi war a reprendre à zéro mais la personne qui est connectée 24 heures sur 24 heures dañ koy japp mais d'habitude da ngay gis koo du fay sax connexion. moy danger bi loolu moy danger bi. même boo désactivé et puis changer les mots de passe tous les 6 mois. Ah. damay bañ temps bi jël ñu. li ma li nekk fii dafa bari nit ñi ñëwaat ci émission. man nga changer les mots de passe tous les 6 mois. parce que mot de passe bi nga xam da nga koy def dañ koy Il y a des logiciels yoo xam ne léegi fi mu nekk nii. Mhm. su ma xam sa

xalé bi jàng na effectivement xalé bi daa dem jàngi wàcc midi midi demi fekku ci kër gi day naan ban instant. Mm-hmm. la sama doom xale xale bu xamee xale bu góor bi ban instant la lii amee. Mm-hmm. c'est am na loolu nag li ko indi mooy. Mm-hmm. les parents ne communiquent plus avec les enfants. waaw waajur yi waxtaan leen ak xale yi dina am instant boo xam ne bu fekkee kër gi am na wifi ñu ne la ndàgg fayal wifi bi te nga woo xale yi bu topp seen bànneex lu ëpp. l'enfant dafa war a am benn durée boo xam ne dafay xool internet. et actuellement dafa am feebar yoo xam ne mu ngi ci ñun da ngay dem hôpital doo ko gis nga dem ci sëriñ mu ne ngelaw la lii moo ko joxe. waaw du interférence. être en contact permanent avec le wifi avec internet am na un feebar yoo xam ne da koy dugal sa servo doo ko say vision du la jàppagum léegi de tànk nekkoo mag mais day wàcc ba sa yaram. laaj sa yenn organisme yi boo demee hôpital kenn du ko gis boo demee ci sëriñ du ko gis day naan ngelaw la mais nekk na feebar boo xam ne connexion moo la ko jox. <laughs> loolu kay loo tax sëriñ sëriñ yi seet dal ci. connexion rey nañu wax ñu naan la ngelaw la waaw boo demee hôpital dinaa commencé seet. dañuy taxaw sax naan la boo demee hôpital doo gis dara te effectivement boo demee hôpital doo gis dara. Mhm. loolu li ko waral mooy. Mhm. l'enfant bu absenté woo. Mhm. ci doon de temps par jour mu xool ay données da xol xalé bobu boobu semaine bi ci top cerveau day normal bu cerveau bi normal nga xamni moy commander commandé yaramam bi yëpp. Mm-hmm. toutes ces maladies dañuy wacc day nan papa sama digg métteetul de tànk yi doon ruux parce que li ko doon commander ba indi blocage yi fofu dafa libre maintenant. comme cheval de trois lañ jël ci cerveau di ko commandé muy muy muy indi ay métit ci yaram indi ay métit ci yaram. Mm-hmm. internet mën na lu ne. donc internet bi dafa bëri ay danger mm-hmm mais su ñu bàyyee mag ñi rëcc nañu ndax seen intéressé wu leen mais su ñu bàyyee xale yi nga xam ne dañ cee accro euh, et c'est dangereux l'enfant ki nga xam ne mu ngi nekk école di xaar maître bi siffler. Mhm. mu dem taal connexion ndax boo dugg dañu naan fermer vos portables. Mhm. mais am na koo xam ne mu ngi yàqamte ñu ne siffler récréation au lieu mu dem uti lu mu lekk wala waxtaan na xaritam. Mhm. day tal connexion. waaw notification yi lan moo wàcc. moo wàcc actuellement waxoon naa ci émission les enfants n'ont plus de parents amul benn parent buy conseiller ci doomam. bu pare bo yéwo taal sa connexion le soir xol nga mode bi xew bo xé non ngay sañsé yaay un da nga ne sol ma sa mhm. solati mais on demande plus questions à non papa parce que internet bi jox nañu mod bi xew. les influenceurs influenceurs dugg nañu. Mhm. ba un bu goor bi ni léegi nag fa la ñuy jaar pour arnaquer la. léegi on a plus de conseils parents ñooy conseiller les enfants ne lisent plus. Ah, lecture moom jeex na. dootoo laajati léegi loo bëgg a laaj fi mu nekk nii est-ce que c'est la bonne histoire ñuy wàccee foofu ci fake news lépp lu nekk ci internet bi laa mujj parti ay fen la. ni day toog rek léegi boo tàppee fi mu nekk nii. et puis déviation yu grave yi damay ñëw dugg ci internet daal di ne daa may tàppe euh, Sen 24 TV. Mhm. fan la nekk ci Thiès di ko tàppe si je tape 24 TV internet defar na 24 TV yu bëree bëree bëri boo wàccee wàccee day jël benn ku jigéen koo xam dafa def taatu neen ko seen 24 c'est pour dévier l'enfant Lo laaj internet utal na ko tur. Mhm. loo créé internet utal na ko tur. bi est gën a dangereux mooy fen bi muy jàngal suñu mhm. l'enfant est là dans l'internet internet lui demande quel âge as-tu xale bi de 25 ans mais xale bu am 13 ans bu tapez 25 ans la am.

xalé bu jigéen la amna 35 ans mu ngi tudd Awa Cheikh naa ko commencé balancer ay xalé yu góor naa ko balancer ay photo naa ko balancer Google yoonam néew ci ndax xamu la xamu foo dëkk. liñ ko wax moteur de recherche la rek. très bien hmm. li ci gën a dangereux mooy boo jëlee portable bu bees. Hmm. jox ko sa doom li mu njëkk a def mooy ubbi compte. waaw sinon doo dem fenn. ñun mënti ñoo ubbi compte Google. Google day toog di la xaar. Hmm. nga def pâté dara rek mu bañ. ne la essayal pâté 24. waaw <laughs> moo baax nga def partie 24 ak ñu kontaan ne ah dugg na maanaam dañ lay teeru du yaay créer sa compte bopp léegi les gens sont paresseux pour créer leur propre compte. waaw mais nit ñi dañuy defe ni dañuy defe ni que maanaam tur yi ñoo bari ba affaire bi saturé. déedéet bul nangu mu diriger la ndax moom daa toog di la xaar. mais du jàll sinon. dina jàll paate nga tudd. Hmm. bul def paate bi. defal te pas dëpp ko. ok yow ba nga inscrire def pas de sa sant def sa date de naissance ñoom la ñuy créé di la xaar ne mu ngi ñëw ci suuf yow boo laalee rek ñoom ñu ngi créé seen compte ci suuf di la xaar. ay da ngay gis da ngay wàcc 2275. nga wàcc na nga wàcc wàcc daal di laal ñuy bañ nga laal ñuy bañ bàyyi ko foofu toogal 3 minutes boo laatee day jàll mais soo dëgëree dañuy naan parti mii daa bëgg dugg nañu bañ rek léegi mu laal ci

Euh, suñu événement bu mag bi nga xamné mom lañuy la euh, le 9 novembre incha allah. Mhm. Euh, Pathé ben benn ngi noonu. Oscar yaa ngi voilà je te laisse Pathé vas-y demal. Mhm. Mhm. waaw comme niñ ko waxé rek. NJ Family. dafa def Oscar ñi nga xamné mom moy mooy doomu yi nga xamné ñoo gën a ci biir région bi. donc di leen di leen. nominé manam mbir la bo xamné rek day inciter tous les Thiessois nous aussi ñu tamit gourgour mhm. parce que wa APR dañ ko daan wax quand chacun gagne chez soi. Mhm. on gagne partout. Mhm. donc Thiessois bu ci nekk da tu war gagner gagné fa nga nous ñun ñu ànd donc le 9 novembre lañ koy def 2024 euh, fële ca Sams Prestige. ñu ngi qui invité képp koo xam ne nga aussi ñi nga xam madame, xetali Ceesuwaa yi aussi tamit ñi nga xam ni ay jeunes lañ yoo xam ni ñu ngi indi ay initiative yu mel nii. Mhm. comme le le PDG euh, NJ. Mhm. ni mu ko defee donc yéen waa Cees ñëw leen ngeen jël li nga xam ni moom mooy ticket yi. Mhm. ngeen jox ko seen ay am di jàmm. ngeen jox ko seen ay xarit. ñu àndandoo ñoom ñëpp ñu ñëw fële ca euh, prestige. li nga xam ne moom mooy Oscar bi ngeen ñëw fekke si ko. xam ni Ceesuwaa yi ñoo gën a ràññeeku ci seen milieu. liggéey. Mhm. donc code QR baa ngi mu doon ay mbir yo xamné mbir yu léra léra lér la. Mhm. donc ñu ngi leen invité yeen ñëpp. Mhm. ngeen ñëw fekk ci ko donc ma delloo la li nga xamné mom moy cadeau bi Cécile. ñu jaajëfal la bu baax baax comme ni paté waxé Oscar de Thiès la muy am le 9 novembre au Sams Prestige euh, bo à partir de 20h mise en place bi numéro téléphone pour euh, billet yi génn na. ko xamné rek euh, billets yi c'est pas que. da ngay ñëw wala ñëwoo ku ci mën a jàpp rek na ci jàpp parce que ku ni groupe NJ Family xam ko ci événement mhm. donc événement rek nga ko mën a jàppale donc ku ci mën a jënd jox ko sa rakk wala nga jox ko parce que loolu noonu comme jawe li muy wax rek éducation mhm. euh, ca loolu la daan mhm. njëkkee parce que delloo njukkal ka nga xam ni xam na ba xàmmee ba ràññee bay xamle donc koo koy noonu ko fa ñëw rek dangaa mën a ñëw jël si ab njàngat Euh, donc li ñuy wax rek moyen moy réserve c'est tickets. à partir de 20h aussi. Hein? à préciser c'est à partir de 20h. voilà mon ngi 77 231 58 49 ou le 77 859 16 83 le 76 539 46 46 le PDG NG euh, bu groupe euh, Sen 24 TV euh, comme ni ma koy waxee rek ku ci jàpp da nga cee war a jàpp ku ci jàppul da nga cee war parce que moom liggéeyam ci biir ties mën naa ni sax warna bok ci ñi ñuy nominé donc mom mi nominé waate rek warna bok ci ñi ñuy nominé xamna ni rek li may wax rek moom mooy lepp rek yow la laa di revenir Diawé tike yaa merci beaucoup mhm. donc nek nu l'am solo parce que ni nga ko waxee rek on récompense un leader. Mhm. Euh, parmi ces leaders. Mhm. day nekk koo xam ne insister la population ni liggéey rek moy lay fay. Mhm. donc ko xamné dafa gorgo ci li nek nekk gëm ko fonk ko. Mhm. Euh, muy gëm sa bop nek un leader. nek ci ben parti liggéey ci bañu ragné sa compétence. donc kooku ñëpp dañ la wara délo ñukal même bu koy énergie défé population Thiès la ko defal. ndax ñëpp warona andando sargal ki nga xamné mom lañuy sargal. mom am initiative daal di ne indi leen man ma porter sargal bi. kooku ku am doole da nga ko war a jàppal. Mhm. donc ñu ngi koy sant aussi di ñaan d'ici le neuf incha allah yàlla na ticket yëpp jeex. Mhm. Euh, ba nit ñi di demandé. Mhm. ña ñuy sargal aussi yàlla nañu nekk des exemples yoo xam ne dinañu incité ñeneen. ba année prochaine ñu mën a sargal ñeneen. loolu daal vraiment euh, nous sommes de tout cœur avec vous. te incha dinañ jël ci ticket yi. macha allah dañ lay bàyyi jawee nga daal di tàggatoo waale ak sénégalais yi di wax jox ñu dig daje kañ nga fiy dellu si waat. waaw euh, di sant. Euh, waa seen 24 TV. en passant par le PDG euh, son notre frère. Mhm. suñu xarit bokk Thiès mu donc doomu Thiès bëgg Thiès kër maam El Hadj mhm. muy kër diine gi euh, muy ndàgg ndàgg mi nga xam ne vraiment ñàkk iñaan mhm. ñu bokk milieu bi. wax depuis des années des années ñu nekkoon ci kanam vraiment mu ñëw xool suñu tànk ba réaliser loo xam ñu sax réaliser ñu ko. ndax gëm boppam wax nga rek mom lañu warona waroon sargal mhm. mais kooku sargal bi génn ci làmmiñ bi yag mhm. di santé aussi Cécile mi nga xamni mo moo doon animé émission bi waye mon frère Pathé mi nga xamni mhm. eh, dawul dara euh <laughs> machallah di leen sant di leen gërëm di nuyu suñu technicien bi euh vraiment sant ko ci effort maestro Elzo vraiment effort yi mi def yeup pour émission bi jaar yoon ñu koy sant di ko gëreum di jox euh, la population ak les euh, internautes

jariñ am compétence mooy tax ñu defal Sénégal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje ci beneen plateau fii ci seen kafe café euh, plateau boo xam ne matinal lay doon euh, plateau boo xam ne dinañu laalaale éducation ndax éducation mooy fondement lépp mooy fondement lépp jaajëfal la bu baax a baax man nag xam naa ni àjjuma moom du fekkeen ci la sama juddu ah, mooy sama anniversaire waaw àjjuma euh, maa ngi ñaanal sama bopp gudd fan ak wér-gi-yaram ndax ku baax laa bari na ñoo xam ne mel nañ ni eh, yot nañ sama âge te defuñu li may def <laughs> réalisé wuñu li may réalisé tooguñu di wax ci plateau yi mm. yeewuñu 6 heures du matin di xëy 8 heures donc jaajëf sama bopp maa ngi san sama bopp bu baax di gërëm sama bopp waaw am na ñu bari ñoo xam ne bëggoon nañu nekk madame Diouf waaye xeex naa ba doon ko donc loolu lépp ci ay réalisation la bokk donc maa ngi sant sama bopp di gërëm sama bopp ndax man moom ku baax laa ku yaru laa ku tey laa ku bëgg sama bopp laa ku mën a joxe sama alal la waaw waaye léegi nag dama koo bàyyi ndax jamono ji léegi moom <laughs> tout reste dans ta poche ndax dëkk bi dafa métti réew mi métti. Ah, waaw di wax rek ne amul lu baax de. Euh, di wax rek ne comme rek ne man la sama bés day la may choisir. Ah. la ñu waxoon rek ñi murit buy màggali rek yaay choisir. dute yaa ngi nii café gaa ngi yaay choisir waaye nag man la ma choisir mooy la naan teng te téléphone yi man soxloo ma gâteau soxloo ma lekk soxloo ma ku ma seet si ndax dëkk bi dafa métti dëkk bi daa dëgër nay teng rek xeebu ma nag ci commencement ca deux ya laa commencé jëm kaw bëgguma lu wàcc deux jëm suuf waa nay teng téléphone baa ngi Moustapha kado yi loolu rek laa ko soxlaa Pathé mhm. maa ngi lay bàyyi nga daal tàggatoo rek daal di waxaale ci sama bés bu mag waxaale samay baax baax waaw maanaam euh, fi may commencé rek. Mhm. mooy euh, képp koo xam ne daan nga seetaan Cécile. waa di ci kontaan ngir yàlla def leen minimum. Mhm. cinq 5000. waaw joxe leen numéro bi. ay waay waaw joxe leen cinq 5000 cinq loolu numéro yaa ngi ñi nga xam ne nag ay kilifa lañ. ne ci biir dëkk bi. Ah. wax dëgg si yàlla 50 000 50. jëm kaw laay tët jàppale leen. Mhm. Cécile mii tamit. ah da nga naan joxe cadeau. dëkk bi dafa dëgër jox leen ko cadeau. lool yeew di xëy di ñëw paas rek. am na xaalis pardon am na xaalis. non Cécile am na xaalis mais maanaam dooli leen ko doole maanaam moom mu gën a belli monsieur Diouf gën a kontaan waaw émission yi gën a mën a neex. wala dootoo leen ma gisati fajar bi. waaw jàpp leen ci nag. anniversaire bii nii moom pas pas de cadeau pas d'émission. ñoo ko waxandoo waa Thiès. waaw ah. waaw dañuy def benn cagnotte rek. Mhm. benn 1 million 500 kenn ku ci nekk jéem a xool loo ci def. ñu jox ko ajuma incha allah. incha allah mooy Cécile. soo leen bëggee sax ma ah, de bu leen neexee mais cagnotte baa ngi noonu dinañ dugal numéro Cécile. incha allah incha allah affaire yi di dal. bañu ma dara sama ah, téléphone am naa lépp. donc li leen jox di daje rek ci beneen émission. Mhm. waaw ci euh, yeneen waxtaan incha allah. Mhm. donc ñu ngi am contentement encore une fois. Mhm. dikk di partager. ay ak borom xam-xam. incha bu mel ni Jawe. waaw tey moom. da dimbali nga la de. man moom tey damaa fàttal fépp. <laughs> man ndakate nii laa defoon mais def naa nii léegi. Elzo Elzo maa ngi koy gis. Elzo wala maa ngi koy gis wuy ma maa ngi koy gis ci wet mu naan. waaw mais man dama. dañoo dëng nit ñi dëng. fii ku jóg non nit ñi dënguñu. ñëpp dëng nit yàllaa leen bindee noonu. ñëpp dëng. yàlla maanaam. aduna ni la ko neexé ñepp deung gaay fat len fep ñepp deung man li dina ko dag sax dugal ko tiktok pour dimbali xalé jigen yi nga xamni à chaque fois ñu ngi leen gis mhm. nudité bobu sen ay parents di len méré sen der di yaqku mhm. ndek defuñu dara mhm. donc di len wax que ni gaay bu affaire bi duggé dem len ci chaîne youtube euh, sen 24 ngeen dag ko partager ko ak sen ay mbokk parce que ñun sax jariñu nañ ci donc yeen mo war ngeen ci mëna jariñu te information bi du ñepp lay dal donc jël leen ko ngeen partager ko au maximum di len sante di len à la prochaine la sama anniversaire kan la ko parrainé kan nga ko parrainé nga waxé né dëkk bi yëppay toj Babacar Diop la jawé sama anniversaire dégg ko han ah? jël jëf monsieur le maire han ah? mom mi wax buma parrainé ngenté bu ngeen <laughs> parrainé dé biram souley fukki dërëm do ko jëlé ci biram souley la ko parrainé ma parrainé biram souley Diop mo né nak non la talé nak subhanallah c'est un gars talé man dal mako kep ko xamni nak mom wax deug fa yalla ah mooy yaa ngi fii ci zone nord jottalil moo ko Birame Souleye. nee ko Cécile Alioune Mbodj laay woo xam nga la. waaw nee ko Cécile nee na. xam nga man xam sama xarit la xam na moom bu baax xëy na nag nit ki soo nee ministre sa sa kii sa carnet mooy changé. doo carnet d'adresse bee changé carnet bee changé. sa numéro bi billaay sa numéro yi nga xam ne ñoo xamoon ñooy wàcc suuf ñi nga xam ne bés ñooy yëg ci kaw. donc Birame Souleye euh, ministre bu la neexee sax tànkal pétrole jox ma ko <laughs> bëgg naa ko kat. paanu pétrole la paanu pétrole bëgg naa ko <laughs> donc Elzo <laughs> bés baa ngoog le maestro. defar nga sa bopp ndax dégg naa whatsapp bi daa ubbeeku woon. indi <laughs> daal Elzo indi ah, rek laa ci gis mu naan nii xam naa moom xamu ci lu xe <laughs> ñun ñëpp a fat fépp day ñun ñëpp a fat ci dara xoolal li jawe doon wax sànq naan xale yi de moom mii ci wàllu boppam da ngeen maa war a jox téléphone ma def ci application fu mu dugg rek mu ni tiit parce moo mu xale yee yam xamu ci dara. di leen jaajëfal bu baax a baax ah Ngagny Sarr aussi c'est mon jumeau le premier moom anniversary. anniversaire am koy happy birthday à lui di ko ñaanal jàmm gudd fan ak wér gi yaram yàlla dimbali ko ndax xam naa ne kuy dugg àjjal ndax ku mën a tooñ la fu mu fekk mu ngi reetaanloo nit ñi koy bu baax a je vous donne rendez-vous incha allah mercredi wala vendredi rek mu neex leen rek waaw ah, ci cadre euh, cadeau yi rek ma ñëwaat vendredi ko à la prochaine